bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu boroom julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bisub ajuma tey jii tolloog fukki fan ak ñett ci diggiw tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi hablilladi qasada baytaka alxaraam afdala xajjin raajian ma almaraam min ka aruumu bi rasulillahi alayhi xayru salawatullahi xawaaiji faltaqdiha bila darar wala cidan wala anan wala garar labbayka ya rabbi huna fi baladi asa ulabbiika bi daaka albaladi wa balligan li baytika alxaraami man qasadu alxajja maa salaami bokk yi xam ngeen fan yu nu génn muy bis lañu doon ubbi jumaa joo xam ne bokk na ci ndam yi yàlla defal ku baax kii muy sëriñ bu mag bi muy dëkk ba mu njëkk a sànci ngir yëkkati lislaam ñu ne ko doo ko fi yëkkatee doo ko fi taale waaye defe naa ne lislaam yëkkatiku na taal bi takk na bokk na ca màndarga ya nag ubbi teg jumaay daaru salaam ak mboolem jumaa yi nga xam ne dañ ko ubbi ci ay pàkkam kon ñu ko ci ndokkeel bu baax di ci ndokkeel lislaam di ko damoo di ko sagoo muy ndam loo xam ne yàlla nay yokk saa su ne yàlla nay jëm kanam saa su bayit yi ma ubbee nag waxtaan wi ku ko dégg xam ne wolof naan lu ay di njàmbat jamono ji ñi am yéeney dem penku ngir joxe seen farata ñoom ñëpp ñu ngi ci waajtaay ngir aji màkka te aj xam ngeen ne ponk bu lislaam la mooy sax juróomeelu ponk ponkub lislaam gannaaw boo waxee ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah muy benn ngay julli muy ñaar ngay woor muy ñett ngay joxe azaka muy ñeent ba ko juróomeel nag mooy dem mak ajug màkk nag ñi ko farataal ci atum juróom ñeenteel ca gàddaay kon lislaam am na ba ñu teg ci fukki at ak juróom-ñeent te aj màkk xewul waxoon naa fii ne sunu borom dafa xam ne jaamam ñi dañoo lompoñ moo tax santaane yi muy santaane du leen ko jóorandoo benn yoon da koy sant ndànk-ndànk lu mu leen sant buñ ca dee góorgóorlu ba làggi ca mu sant leen beneen santaane aj nag day faratay jëmm ci bépp jullit bu mat muskàllaf te man ko kon ñépp la war ku mat muskàllaf rek doon ab jullit ci am ànd sam xel te man ko war na la soo ko mënul nag wàcc na la yàlla nee na wa addin fi naasi bil xajji yatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafia lahum waxaat na ne wa atimmu alxajja wal umrata lillah kon jullit bu ne war na ko benn yoon ci dundam ndax di yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam ayuha nnaasu qad furida aleykum alxajju fa xajju na ci yéen aj kon aj leen am ci saxaaba yi ku ne ko a yajibu alxajju alayna kulla aamin maratan ya rasulallah ndax aj gi at mu ne lay war fa sakata nabi yonent bi ne cell waaja laa laajaat ko ko ba muy ñetti yoon fa qaala law qultu naam la wajabat wa ma stataatum su ma ne woon waaw rek mu war at mu jot te du ngeen ko man zaruni ma taraktukum fu ma yem dee fa yem kon benn yoon la war ci dund gi muy jaamu yàlla koo xam ne nag soo ko xasee def la ko jiitu ci ay safaan yépp da koy far da koy màbb xam ngeen ne Amr ibn al-Aas ba muy tuub dafa dékk loxoom ku tedd ka alayhi salaatu wasalaam ne ko damay tuub ba mu tàllal mu bank loxoom mu ne ko lu tax ngay bank sa mu ne ko damay charte mu ne ko looy charte mu ne ko dañ may jéggal li ma weesu mu ne ko ama alimta an al islaama yahdimu ma qabla xanaa xamoo ne soo tuubee la jiitu tuub ga lépp tuub gi da koy far da koy mabb wa anna al hijrata tahdimu ma qablaha wa anna al hajja yahdimu ma qabla gàddaayi màkka dem madina booba dafa war soo ko defee day far say bàkkaar ya jiitu waaye aj màkk itam soo ko defee day far bàkkaar ya ko jiitu waxaat na ne man xajja falam yarfus walam yafsuq rajaa min zunubihi ka yawmi waladathu ummu nee na képp koo xam ne aj nga màkka te defoo ab safaan waxoo fa safaan booy ñibbisi yaak liir bi door a gane àdduna ci waajuram wu jigéen yéen a yam aj màkk na képp ko yàlla baaxe ba nga man ko ba ko waaj na ko pas-pas bu sell lal te bu yàlla dogalee nga bokk fii bokk ci njaboot gii na nga xam ne yaa ngi def jaamu yàlla goo xam ne ku baax ki da ko nimse woon da ko bëggoon a def waaye ñu gàllankoor ko ba munu koo def ala alladi ayqa jismi an ziyaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru dañu ko gàllankoor ba munu koo def waaye ginnaawam mbooloo ñoo ko ko defal kon soo bàyyi ko ci pàkk bi di ko def na nga sóoraale ne yaa ngi joxe sa farata waaye yaa ngi mottaliwaale yéene ku baax kii qasadtu ziyaarata nadbi lkarimi bila zadin an cheikh alxadimi kon yaa ngi mott mottaliwaale yéene ku baax kii ñuy bàyyi ko fii ci Sénégal di dem màkk itam nañu sóoraale ne li ñuy def am nañ ci tawféex ndax mag ña ko daan def bu njëkk dañu daan dox dañu daan doxi fii ba màkk ñuy dem ba loola xewi ay gaal lañuy dugg ci géej fii ba màkk ñu dem ba loola xewwi ñuy door di dugg nag ay fafal naaw nga xam ne bu ne lay fii ci Sénégal rek danaan cëpp ci Madina amutul daanaka ab coono te mën nañoo dem sax ba dëkk bu sell bi am aéroport nga xam ne bu ne lay ci dëkk bi rek danaan cëpp Madina yàlla na ko yàlla def su ko defee kon ñiy dem nañu xam ne léegi dem ngi jàppandi na dem ngi jàppandi na ndax soo ne fi lay rek ay waxtu yu néew du ëpp juróom-ñaari waxtu juróom-ñetti waxtu nga àgg ci almadina doo doo taxaw fenn yaa ngi wàcc ca aéroport madina munawara kon loola day tawféex joo xam ne sunu borom baaxe na ko ñi ñëw ci mujjug jamono muy loo xam ne kon pas-pas na ko lal na nga xam ne ku baax kii yéene woon na ko su ko defee li ëpp ci ñiy jóge Sénégal daanaka ñëpp sax ñoom bu ñu demee Madina lañu ñu njëkk a jaar moo tax Madina bu ñu àggee ba ñu yóbbu leen ci seeni dal ba ñu noppalu tuuti rek nañu yeesal seenum njàpp dem nag ca jumaa ju tedd ja bu ñu fay dem nag nañ ko waajal nañu laab nañu xeeñoo gët bu ñu àggee nañu jiital seen loxob ndeyjoor seen tànkum ndeyjoor wax bismillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi allahumma aftax li abwaaba rahmatik loolu jumaa jooy dugg sax moom ngay wax kon dem nga Madina dem nga ci jumaa joo xam ne ginnaaw jumaay màkk moo gën ci jumaa ji dem nga ci jumaa joo xam ne genn julli goo fa julli moo xam muy farata wala wala naafila dana wecci junni julli kon genn julli goo julli rek dañ koy ful junni yoon moo tax moo wax ci xadis ba ne salaatun fi masjidi haada xayrun min alfi salaatin fi ma siwaahu illa al masjid al julli ci sama jumaa ji moo gën junni julli yoo julli feneen bam des jumaay màkk jumaay màkk moom genn julli ci jumaay màkk téeméeri junni julli la kon loolu ku fa yàlla yóbbu na ko màng nanga xam ne Madina ñi ngay dégg ñu naan almuhajirun wal ansaar foofu la ñu nekkoon foofa la lislaam nag amee doole fa la lislaam nag tasaaroo law ci biir àdduna ba agsi fii ci réew mi kon àgg nga ci jumaa ja tabbi nga ca biir na nga julli ñaari rakka nuyoo ko jumaa ji na nga fexe ba fa ñuy wax ar sharifa mooy diggante barab bu tedd ba ak minbar ba foofa wax na ne maa bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna diggante sama néeg bi ak sama minbar bii ab tool la ab dër la ci dëri àjjana yi moo tax boo fa demee dafa am kenn yoo xam ne nañu mel ñoom rek ñoo ko mel day tax mu yomb a xàmmee moo tax nit ñi dañuy njëkkante di fa julli boo demee sax soo yaa fa sax doo fa julli boo fa xasee am sax barab boo toog bu neexee bul fa jógati soo fa jullee ba noppi nag nga dem ca barabam bu tedd ba jàkkaarloo ak moom ànd ak teggiin euh, suufeel sa kaddu suufeel sa bët soo ko defee nga nuyu ko soo ko nuyoo ba noppi nga jàll ca sa ndeyjoor nuyu ñaari saxaaba yu tedd ya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 وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول jàkkaarloo ak barabam bu tedd ba daal koy nuyu ne ko maa ngi lay nuyu yow mi yàlla yónni maa ngi lay nuyu yow mi gën ci ku yàlla sàkk maa ngi la nuyu yow mi nga xam ne la la yàlla yónni woon lépp jotli nga ko laa laay biire nga xeet wi ginn nga leen ñu jóge ci lëndëm jëm ci leer loo xam rek ci lu baax ci leen def nga di ko wax nga xam ne kii nga jàkkaar lool moo moo gën ci lu yàlla bind danga daan jàng xasida gis ku baax kii di ko joobe di ko tagg na nga xam ne ka mu doon joobe di ko tagg nag muy ab soppeem di léppam moom nga jàkkaar lool nii kon barab barab bi nga nekk na nga xam ne woyoful soo ko nuyoo ba noppi nag jàll nuyu ci sa ndeyjoor tuuti nuyu Abubakrin a siddiq nuyu Osman ibnu Affan moom itam ci sa ndeyjoor tuuti te képp ku la yóbbante nuyoo tam na nga ko ko jottulil sang ba alayhi salaatu wasalaam feeg yaa ngi dëkk ba na nga fexe ba julli farata ak julli naafila bu ko jullee feneen fudul ca jumaa ju mag ja fu mat dem na fa dem eh, nanga dem eh, baqiya muy armeel ya fukki junni saxaaba ñoo fa tëdd na nga dem jabalu Uhud sayidu shuhada Hamzatu fa la tëdd na dem Quba ak nag barab ya ñuy ziyaare yu bare bare bare la masjidul Ghamaama masjidul Ijaaba euh, al masajidu saba ak yeneen ak yeneen nga ne fa kon farlu lool di jàng Alqur'an di jàng xasida di tudd yàlla wenn waxtu daal bu mu la faat bu buñ ne nag waaj leen dañuy dem màkk nag su ngoonee dañuy dem màkk wala su guddee dañuy dem màkk nga door a dem sangu nag ca fanga daal sangu ba set mën ngaa watu fab sab armal sol man ngaa xeeñoo gët ba bam soob la ngeen soog faa jóge nag dem ca fa ñuy armale muy masjidul miqaat muy abaru ali bu ñu demee foofu nag fa ñuy armale maanaam fa la ñuy jullee ñaari rakk nag daal di yéene nag aj gi ngay aj muy ifraat wala qiraan wala tamato fa nga ko yéenee tàmbay tàmbali nag labayka labayka allahuma labayka labayka la sharika laka labayka inna alhamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak te yii yëpp doo ci jaaxle doo ci tumuranke ndax am na ñoo xam ne ñooy saytu mbooloo ma lu mat a wax ñu koy wax ñu leen di aw lu mat a def ñu koy def ñu leen di roy su ko defee nag nga dugg sa oto nag gannaaw bi nga armalee te soo armalee nag lépp lu ñuy tere ko armal bu ko defati bul watooti bu lewi say we buy bul xeeñoo gët bul sol mbaxana bu dee jigéen bul sol kawas bul muur sa kanam bul def daal dara lu ñuy tere bu dee góor bul sol lu ñu ñaw muy tubéy ak jum mën a doon wala mbubb mu mën a doon ndax dangay ngay dangay wordu ngay woddu kon armal nga sol nga li ñu war a sol dem nga fa ñuy armale nag julli nga fa nag daal fay jógee nag dugg ci sa oto nag jëm màkka bu ñu àggee màkka dem ca seeni dal nag ba wàcc seeni Euh, sugg sugg wàcce seen i toborte seeni i bagage soog faa jógee nag dem ca Kaaba ga bu ñu demee wër ko tàmbalee ca euh, alxajarul aswad wër ko juróom yoon Kaaba gi féete sa loxom ndeyjoor ngay jàng loo xam ci lu baax ak loo man mos naa koy wër ma dégg kuy tari wakaana xaqan ma dégg kuy tari wakaana xaqan kon loo man rek ci lu baax dee ko def su ko defee boo wëree ba noppi nag nga dem maqaam Ibrahim mi ngi ci wetu kaaba gi julli ñaari rakka dem nag safa ak marwa gannaaw boo naanee zam-zam dem safa ak marwa nag dox ko juróom-ñaari tàmbalee safa dem marwa jóge marwa dem safa kon safa ngay tàmbalee marwa ngay mujje muy juróom yoon dem ci sab dal nag bu fekkente ne da ngaa def tamattu nag mën ngaa sol lu la soob mën ngaa def lu la mën ngaa watu mën ngaa def lu la waaye nag boo dee def xiraan wala tam wala ifraat nag sa armal moom doo ko simmi ba ca juróom-ñetti fan yi ñu soog faa jógee nag ca màkk nag dugg ca oto yee dem Muna bu ñu demee nag euh, minan euh, minan juróom-ñaari kilomètre rek la soree màkk ba tey bul bàyyi ñaan bul bàyyi jàng alquran bul bàyyi labbayka mina munan boo fa demee jullig jullig ñeent rakk yëpp da nga koy wàññi ñaar nga koy def kon tisbaar ja ñaar la takkusaan ñaar gee ñaar fa ngay fanaan ba fajar nag Euh, bu fajaree muy bisub juróom-ñeenteel ci tabaski nag nga ànd ak mbooloo mag génn dem arafa dem arafa nag moo ëpp solo ci aj gi arafa ak màkk nag mën na ñaar fukki kilomètre ak ñaar foo taxaw ci arafa nag baax na yàlla def na waa Sénégal seeni dal dañ fay wàcc ay kaamil dañ fay jàng xasida dañ fay waxtaan waxtaane diine di fa def ay bernde di jox ay kafe café ak muy lu am solo mos na ma faa gis lu lu sedd xol mooy ko yore ñaari kaasi café te waaxuy dem am ku ne ko café café gi moom fu mu jógee mu ne ko murid ne fa ne fële ñoo koy joxe murid ñoo koy joxe kon ña ngay def lu yàlla gërëm mooy difa jox nit ñi la ñu bëgg soo ko defee nekk arafa nag ndax mbooloom arafa sunu borom day puukarewoo mbooloom arafa ci waa asamaan naan unduru ila ibadi xool leen sama jaam ña nga xam ne euh, li ñu sol amul solo ñi ngi fàgg ñi ngi tilim xool leen sama jaam ñi ishadu malaikati anni qad ghafartu lahum yéen malaaka yi seere leen a gërëm naa euh, jégal naa leen su ko defee nag arafa nag dañ fay boole tisbaar ak takkusaan te dañ koy wàññi dañuy noddu li qaam julli tisbaar ñaari rakk sëlmal euh, julli takkusaan ñaari rakk sëlmal kon tisbaar ak takkusaan dañ leen boole ci waxtu tisbaar di ñaan nag euh, di ñaan nag di wax laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lawul mulku wa lawul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ne fa nag ba jant sox doo fa génn te jant sowul bu jant soo nag soolee sooyee nag lu mu soo sox doo juli timis da ngay daal dem musdalifa loo fa guddee guddee àgg fa ngay boole timis ak kon kon arafa fa la jant di sooyee waaye doo fa jullee timis da ngay dem musdalifa nga boole fa timis ak fa ngay fanaan fa ngay fore nag doj yi nga xam ne moom ngay sànni juróom-ñaari fukki doj ngay sànni ndax moom ngay for ndax mooy li nga war a sànni lépp su bët setee nag ngeen jógee fa nag dem Muna boo demee Muna nag jamra ba gën a mag ñu ko wooy al aqaba moom ngay moom képp ngay sànni ci bisu boobu muy bisub tabaski boo ko sànnee ba noppi nag fa ngay bàyyee nag labbayka bi nga doon wax euh, su ko defee nag nga xam ne kon euh, aj gi mi ngi bëgg a jeex soo ko sànnee nag soo waree rendi euh, hadiyu muy sa sam hadiyu muy tabaski mi nag fa nga koy rendee waaye xam nga ne kii def xiraan ak tamato rek ñooy rey te rey bi léegi dafa woyof dafa am rek ay ay carte yu ñuy jaay yoo xam ne da koy jënd ña la koy jaay nag ñoo lay defal lépp ñoom ñoo koy rey ñoo koy fees fees ñoo koy paqueté ñoo koy séddale su ko defee nag boo fa euh, bàyyi ko nag nga dem màkk nag léegi boo demee nag def euh, euh, tawaf bi nga xam ne moom la ñu woowee al ifaada tawaaful ifaada mooy mooy wër mooy mooy wër gi nga xam ne nag ponk lu ci ponki aj boo wëree ba noppi nag boo doon ku def tamattu da ngay dem dawaat safa ak waaye booy booy xiraan wala ifraat nag moom doo dawaat dawaat safa ak ndax ba nga defoon doy na su ko defee soo wëree ba noppi nag ah, delluwaat ca sab dal nag ah, boo demee nag nga sangu ba sot ba set simmi nag armal yi sol lu la soob nag soog faa jógee nag dellu minan am fa ñetti fan ñetti fan yi nag saa boo xëyee euh, nga euh, ànd ak mbooloo mi dem sànni jamra bi ngay njëkk a jot ak ba ci digg ba ak ba nga xam ne mooy alaqaba mooy bu mag ba bu ne nga defa juróom-ñaari juróom-ñaari doj del siwaat ci sab dal ne ci sa euh, jàmm di waxtaan di wax lu baax di def lu baax bu la neexee soo amee ñaari fan sax balaa jant so nga génn mun naa dem màkk waaye bu jant xasee so nag da ngay fanaan ba bisub Euh, fukk ak ñetteel ba nga door a dellu màkk nag boo demee màkk kon sa aj jeex na boo dee ku doon ifraat nag da ngay daal armalaat dem tanim da ngay dallu ay fan nag ba sa yaram sedd nga dem tanim soog fa armal nag ngir door a umra yow yow mi nga xam ne da defoon ifraat bala nga génn màkk nag nanga fexe ba euh, euh, na nga wëraat kaaba gi wërub tàggoo muy tawaful wadaa muy wërub tàggoo màkk tam soo fa nekkee gannaaw genn julli màkk moo gën téeméeri julli julli feneen rik soo fa nekkee bul julli wenn waxtu ci sab dal na fexe ba fajar ba gee dee jullee ca jumaa ja am na ñu farlu ñoo xam ne bu ñu xasee xëy dem dootu ñu jóge ci jumaa ja xanaa ñu am soxla rek war a def yi fi ndaw kundaa wala yu ni demee nga génn dem def ko dellusiwaat ci jumaa ja ba ba ngay julli gee dootoo fa jóge am na ñoo xam ne noonu la ñuy def julli farat yëpp fa lañ koy julee ci ci jumaa ja ak naafile yi su ko defee fexe ba boo fa jógee nag nga waaj na ngir ñibbisi te boo ñibbisi na def loo man am na ñoo xam ne bu ñuy ñibbisi euh, euh, waajtaay wi ñuy waaj ngir ay sëri tax na ba lañ yóbbuwoon ci bi yóbbal sax balaa balaa aj gee jeex mu jeex kon am na ñu seen yóbbal di jeex te aj aj gi du jeex boo ñibbisee nag nga xam ne kon yàlla defal na la tawfiq joxe nga far tey lislaam tey itam siyaare ka nga xam ne moo gën ñëpp muy alayhi salaatu wasalaam te mooy ki nga xam ne moom la sëriñ bi di tagg di ko joobe saa su ne kon ñiy waaj a dem yàlla leen yàlla jàppandal dem gi ñu dem ci jàmm yàlla nangul leen yombalal leen ku ñu del si ci jàmm fekk nu fi ci jàmm yàlla sàmmal na sunu kilifa gi ba lépp lu mu yóotu ak lu mu naal yàlla na ko sottal wasalaamu aleykum wa wa barakaatu.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 الفلاح الحمد لله الذي اختار نبينا سيدنا محمدا ومصطفاه وبالرؤية خصه وبالشفاعة أرضاه وللمقام المحمود ارتضاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الأعلام أما بعد فيا أيها الناس استعدوا وما مثل العمل الصالح من استعداد وتزودوا وما مثل التقوى وطاعة الله الزاد وحاسبوا أنفسا أنفسا لا شك في كونها محاسبة وراقبوا أعمالهم هي باللهو الأجهام مراقبة وتوبوا إلى ربكم وارجعوا واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وتأهبوا فلا بد من نقلة الغمات والوقوف من القيامة في عرصات واعلموا أن الصلاة على نبينا المصطفى الكريم من مفتاح أبواب الرحمات وأن الاهتصام بجنابه العظيم هو الموصل لأعلى المراتب وأشرف الدرجات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد يخشى عقوبة مولاه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الحمد لله الذي أسرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين فنشطت جوارحهم لطاعة رب العالمين نحمده تعالى ونشكره على إنعامه المتوالي كل حين ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا التي كل منا بها رهين ونشهد أن, أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله ومصطفاه أجل شفيع في المذنبين أما بعد فيا أيها الناس إن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا بل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ولا يشغلنكم التكاثر في الأموال والأولاد فإن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون wastaxyu min allahi an yuqallibakum fi nicamihi bukratan wa asila wa antum ala maasiyatihi wa muxaalafatihi muctakifun wa maca kawnihi laa yaczubu canhu misqaalu darratin faqad hadda lana hududan wa ja'ala alayna hafazatan wa shuhudan wa qaala wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ibadallahi تفكروا يوما يحاسب فيه العباد على النقيب والقطمير من كل ذنب صغير أو كبير اللهم ارزقنا توبة نصوحا وعاملنا بلطفك الخفي ما أنت أهله يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا كل ويل كل ويل وتجلب بها إلينا كل نيل wa taxjubuna biha an ilqawmi almufsidin wa tuwajjihu biha ilayna nasra alqawmi alsalihin amin yaxfirullahu lana wa lakum allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah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 الله أكبر الله أكبر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 ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها نارية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مصفوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء